asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki daaray naylul maraam ñi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte ci sun jataay yu ñaareel ci rixlatun ila daaril axira wala mashahidu yowm alqiyaam ñu ci sunu bind bu njëkk lépp lu jëm ci waajal génn àdduna lépp lu jëm ci wàllu jëmmi baat boobu yi nga xam ne moo di mi te muy dëgg goo xam ne képp kuy génn àdduna jëm àllaaxira rek foofu ngay jaare muy almawt waaye ginnaaw bu dég la ca xew amee ba àgg ca marxala bu njëkk ba mooy bàmmeel booba itam ñu jotoon caa wax aslëf waaye ginnaaw bu nit ki faatoo ku ne xam ne na nag bàmmeel moom jaarukaay la moo tax alxuraan di wax ne xatta zurtumul maqaabira mu tudde ko ziyaara ndax duñ fa sax kon marxala bàmmeel ziyaara la muy jaarukaay ba waaye nag bu ca nit ñu jógee nag la ñuy tuddee eh, yowmal qiyaam doon doo xam ne mooy dellu ga ñuy dellu ca yàlla subhaanahu wa taala moom la alquran di wax ne wa anna saata aatiyatun laa rayba fiiha wa anna allaha yabcathu man fi lqubuur yàlla nee na xam ne saa muy bis penc aatiyatun luy dikk la laa rayba fiha amul benn werante rawante na ku julit waro jéem a gëm ne ku dee jeex na wala ku ñu suul ay yaxam ràbb foofa la mbir yeyam yàlla ne déedéet aatiyatun laa rayba fiha day ñëw te amul benn werante wala benn sikki sàkk te bis boobu bu ñëwee nag wa anna allaha yab'athu man fil qubur ñi nga xam ne ñoo génn àdduna bu yàlla wolee bufte bi ba noppi ñu ci biir bàmmeel yi ki faatu nekk ci biir géej ki lakk ci ak lakk ki nga xam ne rab yi dañ koo lekk nit ki fa mu nekkoon ba dekkal jot foofaay bàmmeelam loolu mooy yab'athu man fil qubur ñooñu ñepp dañuy génnaat nag kon loolu mooy jéego bi ci topp gannaaw bu ñu dénkee sunu bopp nag ragal yàlla mi taxa musli ca bis boobale te mu wax ne wa tazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa na ngeen yóbbuloo ragal yàlla ndax yóbbal bi gën ci yóbbal moo di ragal yàlla kon ñu ngi koy dénk sunu bopp di leen ko dénk bisub dellu boobu ca kanam yàlla nag alxuraan wax ci lu bare bari ci aay yu bari bokk na ci fi muy waxe ne wattaqu yawman turjacuuna fiihi ila llah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum laa yuzlamuun na ngeen ragal te moytandiku te fàggul bis boo xam ne turjacuuna fiihi ila bis ba ñëpp di bàyyi seeni bagage ak lañ amoon ak seeni mbokk ak amoon kenn ku ne jóg ngir wuy ji woote bi yàlla boobule muy turjauna fiihi ilallah kuy demit nag doo yóbbaale lu may sa jëf te jëf jooja yépp buñ la koy jox dara du ca manki loolu mooy summa tuwaffa kullu nafsin maa kasabat kenn ku ne la nga defoon yaa ko moom kenn du la ko ŋàbbal kenn du la ko dencal sa jëfi bopp la bu baaxee ñel la bu bonee it ñel la waxum laa yuslamuuna yàlla du tooñ kenn bañ di la yekkal loo toggutoon wala ñu di la defal loo defutoon bisa ngi noonu boo xam ne mooy yowmal qiyaam yàlla di dekkal bakkan ñépp lépp lu waay fàgg woon ci àdduna yàlla ne la mi ngi nii dibis bis boo xam ne taxawaay ba yàgg na lool ba alxuraan di ko nag natte ci juróom fukki junniy at loolu nag kon dana jaadu ci julit bi nit ki bàyyi ko xel bu baax moo tax yàlla ne wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa naxshuruhu yawma alqiyamati a'ma képp koo xam ne dëddu nga ak njub ak gëm yàlla ak mbaax ci àdduna ah fa inna lahu maishatan dankan dana am dund bu xat maishatan dankan goojoo wax nañ ne ci biir bàmmeel moo tax ñuy wax mbugal ga ak fitna ya la fay nekke ba ba ñuy dekkal nit ñi mu teg ci ne wa naxsuruhu yawma alqiyamati ama bu dekkal jote ba ñëpp yi jóg nag day jóg moom di làmbatu du gis di wax boroomam naan ko lima xashartani ama lu tax ma dekki dekkiwaale ngumba fekk na lañ ko doon wax ci àdduna da koo déggutoon kon dund gu xat googu nit ki di am ci bàmmeel loolu lu jar a bàyyi xel la te ci état bi la bokk loolu nag day waral nit ki am ngëm yàlla bu wér ci bis penc xam ne dana taxaw mu yowmal qiyaam képp koo xam ne wedd nga ko rek faqad xaraja min daairatil islaam génn nga ci mbooloom waa lislaam bis boobu yàlla dinu nettal la nga xam ne moo fay am ci ay jafe-jafe ki mbir yu war a jàll loolu doon yoo xam ne yu jafe-jafe ci ab jullit la waaye bu déggee te topp nag dana dellu xaanimiina saalimiina incha allah yóbbaale aw yiw wu bari mucc ci mbugaluk bàmmeel mucc ci sawara itam moo tax yàlla ne yow Muhammad waxal nit ñi ne leen dee moomu kat kenn mënu koo daw te na ngeen xam ne mi ngi leen di dàq te dana leen jot te ku mu jotit kat danañ la delloo taxawal la ca kanam yàlla xisaabanteeg yow ci say jëf qul inna al mawta alladi tafirruuna minhu fa innahu mulaqikum loo daw daw daw dee ngi lay dàq te dan la jot nan la dee di dàqee nit ki mooy bis bu set rek mu jël ci yow aslëf bis bu yàlla sàkk mu jël ci yow ay waxtu ak i bis biir at mi mu jël sa at mi yépp nga manqué la ci sa dund loolu mooy fa innahu mulaqikum bu nit ki demee ba jeexal nag dee na ko fii nga mën a yem fii lañ la yemloo summa turadduuna ilaa aalimi alxaybi walshahaada fa yunabbi'ukum bima kuntum taamaluun su ko defee nag lépp lu nit ki defoon ñu ne ko ah, mi ngi nii ca bis sàngam ca waxtu sàngam ca bëccëg sangam ca guddi sàngam fa yunabbi'ukum bima kuntum taamaluun ñu ne nit ki la nga doon defa ngi nii kenn ku nekk ñaari fan wala ñett yu ne nga gis lu ca bokk te kuy def bis bu set nga jël dara ca la nga am lee nga jeexal loolu moo dal ñëpp bis penc bari ay étape bokk na ci albaasu muy dekkal gi ñuy dekkal nit ñi wal xashru dajale gi leen dajale ci mel ne penc mel ne ku yor ay animaux al mizaanu ak balaas ba ñuy peesee jëfi nit ñi kenn ku nekk ñu xool la nga baaxle ak la nga baaxlewul loolu mooy bis penc yowmal xiyaam mooy bis bi nit ñëpp génnee ci seeni bàmmeel saa bu loolu amee rek yowmal xiyaam daal dinay taxaw génne ci seeni bàmmeel ci bàmmeel yuñ mën a nekk lay taxawaayu bis penc nag la ngay njëkk a gis mooy nii jant bi soree kaw tey ba tàngoor yu du la lakk dana wuute bu ëllëgee yàlla subhaanahu wa taala day jegeel jant bi ci boppi nit ñi ba tàngooroo metti loola ngay njëkk a jàmbat ci taxawaay boobule muy lu jafe lool ci doomu aadama yépp loolu nag mooy yowmal qiyaam bis bu ñu xaree bàmmeel yi génn nit ñi yóbbu leen ca bisub seet jëf ya delloo ruux yi ci biir yaram yi yaram ya ràppoon ak yépp ñu defaraat ko delloo ya nekkoon suuf ñu dello si ruux yi ca biir lu may nag ñi nga xam ne ñoo doon yonent yi ak suhadaaw yi ñoom suuf du lekk seen yaram ñooñu rek ñooy dekki wàlle seen yaram waaye ñu dut ñooñu yaxi kesey dekki ñu defaat ci ak ruux ak jëmm nga fas yéene wuy ji sa borom subhaanahu wa taala li ñuy tuddee bisub dajale ba ba ñuy dajale nit ña ñëpp fi benn béréb boo xam ne lu waay jàppoon danga koy bàyyi ñëw ci penc mi rek ñu dekkal leen loolu bokk na ci dekkal leen waaye it lu doy kiimaan la am na ci xaaj boo xam ne bu ñu leen di dekkal du ñu laal suuf dañuy war wala ñuy naaw di dem tàngoor waag coonab dox baag lépp yàlla dana leen ci musal ñooñu ñooy ñan al atqiyaau ñu ragal yàlla ñi ñi nga xam ne ci àdduna dañoo nekkoon ca la yàlla digle bàyyi la nga xam ne moom la yàlla doon tere loolu mooy catégorie bu njëkk bi ñoom ñooy VIP yi nga xam ne dañ leen di wax kaay leen yéen daal di jàll ci jàmm ak xéewal ñaareelu xaaj bi mooy yuxsanu yuxsharuuna xufaatan xuraatan bu ñu leen di dekkalit yaramu neen la ñuy dekkee ak tànki nen duñu soli dal ñooñu ñooy ñan mooy catégorie ñaareel bi ci julit ñi nga xam ne dañoo toggoo woon ay bakkaar yu mag maanaam dañu doon def bakkaar yu rëy yi naam danañ dekki gaa waaye ña ñu suturaale woon catégorie bu njëkk ba nag ñoom duñu àgg foofa ndax yaramu neen lañuy dekkee ak tànki neen duñu sol ay dàll xaajum ñetteel bi mooy ñi nga xam ne danañ dekki waaye bu ñuy dekki moom ay buuma ki jëng lañ leen di wommate ñee jàpp ca ginnaaw ñee jàpp ca kanam ñëwuti ca penc ma lu tax mooy ñi gëmutoon te lànka topp bis boobu nag moy bis bu jara bàyyi xel bis boobu lu nit ki defutoon du ko fa am te loo fa amutit mu doon ak metti ci yow su boobaa nag ñu fas yéenee taxawal balance su jëf yi kenn ku ne ñu xool la nga doon jëf lu mu doon wal waznu yawma idin al haqq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun yaa nga ak sa takkub jëf di yóbbu boo demee ñu tegal la ci balance bu sa jëf yu baax baaxee loola ñel la fa ulaika humul muflihun man ndargam texee nga noona wal yow ma isinil xaq kon nit ki war naa gëm ne peese jëf am na bu ëllëgee fa man thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflixun loolu moo tax gaa yu baax yi nga gis ñuy sonn ci jaamu yàlla yi ibaadaat yi yàlla digle ñu di ko def li yàlla tere ñu di ko def ñu di ko bàyyi ceeb yi àjjana ñaar rekk la weesuwut ñaar moo di fi'lul waajibaat wa tarakul munkaraat yeneen yi ci des nag ay garaat la yu lay dolli di lay yéegal ci asamaan yu ko ca àjjana yu kawe ya waaye boo saxee ci jëf yi ñu digle yi nga xam ne waajibaat la bokkut ak sunna yeeg yi ñu sob bàyyi yi nga xam ne dañ koo tere yaa ngi caabi àjjana ci sa loxo la lay yóbbu ci àjjana ya gën a kowe nag mooy ndollan yi muy nawaafil yi ñuy def ak yu baax yeeg sarax yeeg yooyu yooyu mooy yokk sa garaat waaye caabi àjjana mooy fi'lul waajibaat wa tarkul manhiyaat ak bàyyi ñu tere kon yàlla nee na koo xam ne sa balance jëf bu baax wat na fa ulaika humul muflihun waaye waman xaffat mawazinuhu fa ulaika alladina xasiruu anfusahum bima kaanu bi ayatina yadlimun yàlla nee na ñi nga xam ne seeni la ñu nekkoon ci àdduna yépp tuutee ca baax wala dara baaxu ca xasiru perte nañu ndax lépp lu leen yàlla doon wax ak woon ak di leen ko jàngal duñu ko déglu duñu ko topp xasiru anfusahum bima kaanu bi ayatina yazlimun seen bopp rek lañ doon tooñ kon loolu lu jar a bàyyi xel ci ab julit li ñuy tuddee al mizaan bi ñuy peesee balance yi jëf mu mel ne sunu balance yi rek boo jëlee pois teg fe jël la ngay peese teg fee fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi iishatin raadiya koo xam ne sa balance su jëf diis na gan bu baax yow de yaa ngi ci dund bu yaa ngi ci dund bu neex fa ulaika humul muflihun aflahu wa zafiru wa rabixu fi dunya wal axira am ngeen la doon wut ci àdduna ak al'axira yadxuluuna aljannata bila xisaab ñooña loola mooy seen xisaabi jëf wa amma man xaffat mawazinuhu koo xam ne sa jëf yu bon dafa wat sa jëf yu baax la ca nekk yóbbuwu la àjjana wala daanewut sa balaas fa ummuhu haawiya atte ba mooy sawara haawiya nag kàmbug sawara la goo xam ne yàlla na ci yàlla musle lu ko tiim rek daanu ca biir wa ma adraka ma hiya lan mooy haawiya boobule naarun hamiya sawara wu tàng ji rë woo ne lu ko tiim lakk ba ñor xom mu nekk ay kàmb yoo xam ne dañ koy gas lu mat sabiina xarifa ci suuf lépp di tàkk ñeel ñi nga xam ne ñoo doon mooy yàlla ñeel ñi nga xam ne ñooy dem sawara kon loolu jullit bi war ko bàyyi xel sawara woowee na muy lakke nit maara day taali bu fekkonte ne ku dee ku lakk benn yoon ba def këriñ ñu bàyyi la nga noppalu waaye du ñu dee noppalu génn ci métit wi du ñu dund itam génn ci métit wa kullama nadijat juluduhum baddalnaahum juludan xayra saa bu ñu leen lakkee ba ñu kotomu ba lakk ba def këriñ ñu yee yeesalaat yaram wa dellowaat ko ca sawara yàlla ne masalu alladina kafaru bi rabbihim amaluhum karamaadin istaddat bihi riixu fi yawmin fi yawmin aasifin nee na ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla bu ñu leen lakkee ba ñu def këriñ yi mel ne dañoo ànd ak sawara ki ngelaw li di naaw di dem ba mel ne ab doom ñu dekkalaat leen delloo leen ci sawaraw kon loolu julit bi war koo bàyyi xel ab julit bu ñu peesee ay jëfam mu wat jëfam yu wat dafay bég kontaan ànd ak lool bu ñu àggee ci téere yi it joxe téere yi mu xam ne moom ab téereem lu baax rek moo ca nekk loolu nag yonent baa ngi ci bégal jullit ñi man kaana fi qalbihi mislu xabbatin ci laa ilaha illa mu dugg jàll aljanna koo xam ne fepp ngëm mi ngi ci sab xol te ngëm googee dëggu dana dugg àjjana doonte dañ koy xisaab itam nag def na seet ay jëfam kon daal bisa ngi noonu boo xam ne lu tiit la la la jommale la lii moo taxoon nit ñu baax ñi daw ñu nelaw guddi di jàng di jàngale di jullee ko woor téye seenu làmmiñ lu seen yoon nekk duñ ca duñ ca dugg lépp ngir ragal bis bu rëy bii bis boo xam ne moos fi min kaana miqdaaruhu xamsiina alfa sana lu mat juróom fukki junniy at te taxawaay yooyu ñuy taxaw ko mat juróom fukki taxawaay yoo xam ne bu ñëw rek gën metti sa moroom gën a raglu sa moroom waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey mi ngi bégal jullit di wax ne wallazi nafsi bi yadi innahu la yuxaffafu ala almu'mini xatta yakuna axaffa alayhi min salaatin maktuba yusalliha fi dunya taxawaay bu yàgg boobu mat juróom fukki junni at fifty thousand years yonent bi nee na giñ naa ci yàlla ne dañ koy woyofalal ab julit bu ngëm yàllaam am bu ngëm yàllaam dëgër ba mu mel ne dafee toog rek juli ñeenti rakk kon noonee lay gàtte ci moom kon li am solo mooy la nekk ci gannaaw ngëm loola nag la koy maye mooy def li ñuy digle te bàyyi li ñuy tere kon li war moo di nu gaaw jëm ci def lu baax bu alxuraan de wax saabiqu ak saari'u ila maxfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ak yi ca tege yépp mooy nit ñi nañu gaaw te jéem far lu ci def lu baax yaa ayyuha amanu ttaqullah wal tandur nafsun na qaddamat li xadin kenn ku nekk na xool la muy feret bu ëllëgee ngir bis boobule gannaaw bu ñu ragalee yàlla ba noppi kon dekkal googu ñu dekkal nit ñi mooy taxawaay boobule lu may ñi nga xam ne ñooy waliyu yi ak anbiyaaw yi yàlla xaraamal seen yaram sawara moo tax yonent bi ne inna allaha xarama ala al ardi an taakula ajsaad anbiya yàlla xaraamal ci suuf ñi lekk yaram yi yonent yi ak nit yàlla kon bisub dekki ba kenn du des muy gone muy mag ak ku man di doon ñëppay dekki fa kanam yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne anna annaasa yuxcharuuna thalaatha afwaajin fawjun raakibiina daacimiina kaasiina wa fawjun tasbaxuhum almalaa'ika ala wujuhihim wa taxshuruhum annaar wa fawjun yamshuuna wa yasawna dekkal gi kenn ku ne na sa ci àdduna rek ngay wujjee lañ lay may yombal ga ngay am ca ëllëg jafe-jafe ya lépp mi ngi dellu ci say jaamu yàlla fii ci àdduna ak sa maandute ak sa téye sa sa bopp ndax kat li kulli mri'in minhum yawma idin sha'nun yughni kenn ku ne boo jógee gàddu sa saag di dem doo geestu nit doo xool nit doo nuyu nit taloo kenn sa bopp nga tal ndax fa nga jëm ak lañ lay doy li nga am nu mu toll li kulli mri'in minhum yawma idin sha'nun yuxniih kenn ku ne sa mbir doy na la sëkk kon bisa ngi noonu bu tiitle bisa ngi noonu bu jommale loolu rek doy na ci li yàlla wax ci suratul qaari'a rek ak saar yi demee noonu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn waay ne na ku bëgg a xam bis penc dëgg la wala déet jàngal sóoratu takwir jàngal sóoratu takwir ida shamsu kuwirat da ca yàlla wax lépp ci bis boobule kon yowmal xiyaam lu dëggu la lu wér la luy am la naam kenn gisul ku dem dellu si waaye alxuraan joxe nañ ci ay misaal ak leeral yonent bi alayhi salaatu wasalaam jox nañ ci ay misaal ak leeral lii jariñ ab jullit du lenn lu may jëfam lii tax nit ke dugg àjjana it du lenn lu may jëfam bis boo xam ne ca la ñuy delloo ñépp yawma yafirru al mar'u min axiihi wa ummihi wa abiihi wa wa baniihi bis boo xam ne yafirru al mar'u min axiihi taloo sa mbokk taloo sa te loo keneen yawma yafirru almar'u min axi ak kan wa ummihi ak kan wa abiih ak kan wa saaxibatihi moo xam jëkkëram borom këram wala soxnaam kenn talul kenn yawma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zaati hamlin hamlaha wa tara annaasa sukaara wa ma hum bisukaara walakinna azab allahi shadid bis la boo xam ne lu jara waajal la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon alkayisu man daana nafsahu wa amila lima baada al mawt nee na ku yow ku smaat ku am xel da ngay nekk nitu diine te def loo xam ne boo lëggee mu amal la njariñ alkayisu man daana nafsahu wa amila lima baadal mawt bu julli jotee jógal julli bu woor jote woral bu joxe asaka jotee fàttalikul sa alal bu aj màkka jotee xamal na war na la soo ko defagul su saraxe jote it wala def lu baax fii subulil xayraat defal lu baax fii subulil xayraat fa ñuy joxe fa ñuy dimbalee doomu aadama yooyu yépp bunti yiw la moo tax yonent bi ne alkayisu man daana nafsahu wa amila lima baada al mawt te def loo xam ne boo ëllëgee moo amal ko njariñ nit ñu baax ñiñ la fi daan tuddal nga di leen dégg ba léegi seeni tur du raaf dafa luñ fi nekke woon mooy jaamu yàlla ak dimbale mbindeef yi ci anam ya ñu man yonent bi ne wal aajisu man atbaa nafsahu hawaaha wa tamanna ala allahi al amaani nee na koo xam ne dangaa sàggan nag sa bakkan di la tere yu bari boo demoon bay bëgg a génne asaka bàyyi ko boo demoon bay bëgg a jóg waxtu julli julli bàyyi ko boo demoon bay war a woor sax wala nga nekk fu la kenn gisul nga bañ a woor loolu mooy koo xam ne bakkanam da koo jiital wala lépp loo xam ne neexul yàlla ba noppi sa bakkan di la ca xiirtal nee na kooku mooy ki nga xam ne dafa perte nag kon jëf ju baax ci gannaaw dee mooy li nga xam ne mooy jariñ nit ki balaa dee ñëw bàyyi lépp luy lore itam wala lu xaram bokk na ci li lay musal ca sawara woowale Omar ibnu Xataab radiyallahu anhu daana wax ne xaasibu anfusakum di leen taxaw seetlu taxaw seetlu mooy ndax man mi maa ngi dëgg dëgg na ci li neex yàlla wala li ma yàlla sant maa ngi koy def am xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu balaa bisa ñëw ñu di la nettali la nga doon def te fekk ne yow loola bàyyiwoo ko woon xel wa tazinu lil ardil akbar na ngeen xool seeni jëf te di ko yokk waxtu ne jàpp ne defalagoo dara yàlla jàpp ne defagoo dara ci lu la yóbbu àjjana waxtu ne ngay jéem a remplir sa compte wa innama yaxefu alxisaabu yowma alqiyaama ala man xaasaba nafsahu fi dunia koo xam ne yaa ngi xisaab sa bopp fii ci àdduna sab xisaab day woyof lool bokk na ci xisaab sa bopp ci àdduna nag muy seet say jëf nga bañ fee bàyyi am lënt baña a am lënt ci sa alal bañ a yóbbu boroy jàmbur yuñ la fayalut bañ a yóbbaale xaq jàmbur yoo delloowut loolu bokk na ci xaasibu anfusakum ndax kat yàlla nee na yawma idin tu'raduuna laa taxfa minkum xaafiya boo lëgee kenn ku nekk ba ñu gaaral say dossier ca kanam yàlla laa taxfa minkum xaafiya mënoo nëbb den leen lenn mënuñu laa nëbbalit len laa taxfa minkum xaafiya moo tax yàlla di wax ca saar wu ñu miin di wax ne ida zulzilatil ardu zilzaalaha wa axrajat al ardu athqaalaha wa qaala al insaanu maa lahaa yawma idin tuhaddisu axbaaraha bi anna rabbaka awxaa lahaa yawma idin yasduru nnaasu ashtaatan liyuraw acmaalahum faman yacmal misqaala darratin xayran yarah wa man yacmal misqaala darratin sharran yarah kon bis boo xamante ne bi isa zulzilatil ardu zilzalaha jant bu ñu yëngalee suuf si ñépp tiit kenn amul lenn loo def suuf si ak yi lépp ànd nekk ay lu nooy nepp loolu mooy isa zulzilatil ardu zilzalaha wa axrajatil ardu asqalaha mooy lépp lu duggoon ci suuf it génn jëmmi nit yaag seeni jëf lu fa nekkoon génn ci biti su boobaa day ida zulzilat al ardu zilzaalaha wa axrajat ardu asqaalaha doomu aadama lu mu mas a def ay tur ay cëram di ko nettali say tànk di wax di nettali say làmmiñ di wax say bët say loxo loolu yépp bokk na ci li yóbbi nit ki musiba wa qaala al insaanu maa laha bis xam ne yëngal nañu suuf ay juróom-ñaar lépp loo xam ne moo nekkoon ci suuf lu man di doon génn ci biti waxaalal insaanu maa laha benn bi ay ay jëmmam aw yaramam ñoo koy wax benn bi aw làmmiñam ñoo koy wax so ko defee kadi bi yéefar moom du mën a wax léppam ndax dara mbaaxul yawma isin tuhaddisu axbaaraha yawma alqiyaamati tuhaddisu al ardu nga xam ne day xibaar moom suuf si lépp lu ñu defoon ci kawam nag lu ñu defoon ci kawam suuf da koy wax say cër di ko wax ñi nga xam ne nag ay jullit xaqan lañ woon suuf du leen seereel mukk lu may lu baax seeni cërit du leen seereel lu may lu baax waaye ñi nga xam ne ñoo doon yéefare ki moykat nag seeni cër da leen di seereel seeni suufit di leen seereel kon loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam laajoon nañ ko mu ne mu ne atadruuna ma axbaaraha lan ndax xam ngeen lan mooy xibaaru suuf boobu ñuy wax ñu ne déedéet mu ne fa inna axbaaraha an tashhada ala kulli abdin wa ummatin bima amila ala dahriha mooy lépp loo xam ne mi ngi woon ci kaw suuf suuf di ko nettali wépp xeet luñ doon def ñu di ko nettali naan nii la demee woon nii la demee woon nii la demee woon bi anna rabbaka aw xaalaha ndax kenn waxloowu leen yàllaa leen waxloo yàllaa waxloo cër yi moo waxloo suuf si tuhaddisu axbaaraha ci kàttanu yàlla subhaanahu wa taala yawma idin bis boobale yasduru nnaasu ashtaatan dañuy génn mbedd yi fees dell ki nit ndax am mbedd ndax léppum penc la waaye fu ne nit dafay jóge di ñëw yasduru naasu ashtatan lu tax liy raw amalahum kaay leen ñu seet seeni jëf ñëwal andi say téere ñu xool lu ci nekk li yaraw amalahum taa bi daa des lu bari fattabi'uni na ngeen ma topp gis nga bula la yàlla wommatalee bu bi wommatalee wommatee jëmale ci yàlla faaw da ngay bëgg yàlla bokk na ci liy tax a bëgg yàlla mooy at tafakkuru xalaat li yàlla di wax ci alxuraan lu bari ulul albaab ak ñi nga xam ne dañoo xellu mooy xalaat xalaat bi foo koy tàmbalee mooy yow nga xalaat ci sa jëmm ji ne man de am na ku ma sàkk jox ma ay tànk jox ma ay nopp jox ma ay bëtëki akum xel ki ma defal lii ku mu doon war ngaa xalaat loolu boo ko defee léegi nga sopp yàlla boo demoon hôpital tey gis koo xam ne mënut a yëkkati ab cër yow nga mën a doxi say soxla dara méttiwu la ci sa yaram nga yëg ne dara méttiwu la boo xiifee lekk boo maree mën a naan bu fekkee kuy xalaat nga xalaatal ci mbiri yàlla ne kan moo def lii ak kan moo ma defal lii man li tax ki tëdd fii mënul lii taman ma man lii kon kii yeeyoo na ma sant ko yeeyoo na ma sopp sopp gi nag du sopp xel goo xam ne danga naan jëmm la gisuma ko wala nan la war a mel waaye jëfi yàlla moo lay delloo ci ne ki def lii ku baax ci man la ki def lii ku baax ci man la kooku mooy ki la may wér gi yaram nga mën